dañoo fas yéene waxtaan ak sénégalais yi ndax xam ngeen ne jamono yëpp am na ay vidéo yoo xam ne mu ngi tasaaroo ci internet bi ci réseaux sociaux yi ay doomu aadama yoo xam ne dañuy yëkkati ay kàddu yoo xam ne yu day waar la di ko jëmale ci kër gii nga xam ne mooy kër Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly di ko jëmale ci sunu kilifa Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly ci biir loolu nag. kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu ahlu rida nga xam ne mooy kuréel kuréel gi nga xam ne moo lënkale mbooleem sëti sëriñ Abdou Dia Mbacké jot ndigal ci sunu kilifa di sëriñ Mame Balla Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Abdou Dia Mbacké Doyoly ngir ñu waxtaan ak askan wi andi ci ay leeral ñu mën a tudd vidéo boo xam ne jamono yëpp ñu ngi koy seetaan kii ñu wax laat sekk saa dagg def ko defe ko assemblée mu yëkkati kàddu yu day waar yoo xam ne daf ko askanale kër gi muy kàddu yi xeebaate kàddu yi boddi ci aw xeet kàddu yu dog mbokk jëmale ko ci kër gi muy loo xam ne itam lu metti waa kër gi la metti mbooleem ñi nga xam ne sëriñ Abdou Dia Mbacké yi jaboote na leen ndax dañoo jàpp ne foofee mu taxaw ci assemblée di yëkkati ay kàddu ña mu seqal wàllu politique la mu seq ak ñoom ci wàllu politique mën naa yem ci seen diggante ak ñam ko seqal ndax am na ko ñuy wax Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Bara Doli moom Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly ab député la. am na ku ñuy wax Serigne Abdou Mbacke moom Serigne Bara Doli moom Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly ab député la waaye nag ànd ak loolu lépp itam sët lañ ci kër gii nga xam ne mooy kër Serigne Abdou Dia Mbacke Doyoly bu fekkoon ne wàllu politique képp la duñ mos a dégg ñu yëkkati kàddu ci wàllu googu ndax yi fi yi fi xew bari na yi fi jaar bari na te mësuñoo yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci wàllu googu sëriñ Abdou Jambak li bu jaboote kenn xamul nu mu toll ñii ay jàngalekati alxuraan lañ ñii fañ nekk ña nga fa nekk tënku ci ndigal nekk ca lañ war a nekk kenn mësu leen a dégg ci dara kon bu fekkee ne kenn ku nekk am nga ab cër boo am ci moom ñoom ab sëñ Abdou ñooñi ak ñoom sëñ Seex suñu borom dogal ci ñoom def leen ay député ñu nekk ci assemblée nekkal fa askan wi loolu suñu borom moo leen ko jagleel waaye ña nga xam ne dañuy seq ak ñoom nag ci wàllu politique lañuy ñuy jëflante ñoom ci seen jëmmi bopp mën naa yem ci seen jëmmu kese bu boobaa duñ ci dégg kenn waaye nag bu fekkee nag jël nañ Sëñ Abdu jël Sëñ Seex ñëw ci suñ kilifa nañ yëg ne nag loolu metti nañu lool metti na njaboot gi metti nañu itam ñi nga xam ne ñoog ñoom ñoo bokk mel na maam muy Sëriñ Abdou Jambaake Doyoly kon nag lu weesu bisu tey bii duñ mayeti kenn koo xam ne di nga yëkkati genn kàddu di ko jëmale ci sunu kilifa wala nga koy jëmale ci kër gi nga xam ne mooy kër Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly bu fekkee ne kenn ci ñoom dafa am règlement de compte bu muy réglé ak moromam ci biir na yem ci seen biir ci seen wàllu politique waaye buñ jéggi mukk di ñëw ci sunu kilifa gii nga xam ne amuñu lu dul moom te itam moom lañ yaakaar tey moom lañ yaakaar ba ëllëgee ci laat sekk moom yi nag la ñuy jaar ak ñi bokk ak moom xalaat ak ñi mel ni moom di leen xamal ne Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly mii ñuy wax. lii mu bokk ak Serigne Touba bu ñu ko génnee ci ak bokk ak bokk jeex waaye ànd ak loolu lépp li muy am solo Serigne Touba dafa jàngale woon bind bi nga xam ne bokk na ci bind yi gën a mag ci yoonu murit mu jàngaloon ko ak njabootam ñenn ñi ñenn ñi di ay doomam kenn ka di ab jarbaatam kenn ka di rakkam